Bonjour, la nouvelle stratégie du président Ousmane Sonko à l'ordre du jour. En effet, ses avocats et ses proches collaborateurs qui lui ont rendu visite à la prison de, du Cap Manuel estiment que l'ex-leader du PASTEF euh, se porte à merveille. Selon Guy-Marie Sagna et Abipsi, le le conseil des ministres de ce mercredi 22 euh, novembre le président Macky Sall invite ses collaborateurs à la mise en œuvre de toutes ces actions et tous ces engagements pris lors de cette visite pour satisfaire les populations issues de ces zones, notamment les Kédovins, les Kaolakois, les Cafrinois et les Fatikois. Parlons du vote des, du budget des ministères à l'Assemblée nationale. Euh, Hier, les parlementaires ont fait face au ministre de l'Éducation, euh, dont le budget de son entité a été revu à la hausse d'un montant de plus Aujourd'hui, c'est au tour de, du ministre de l'Eau et de l'assainissement, Serine Bay Cham, de faire face aux députés. Parlons de l'immigration clandestine, un sujet qui préoccupe les populations sénégalaises, où beaucoup de jeunes périssent euh, en mer. Euh, dans un panel organisé avec le réseau des entrepreneurs du Sénégal, certains jeunes donnent leur avis par rapport à ce phénomène. man moom xalaatuma dugg ci gaal yi avion yi tamit waaw dañuy xaar ba njëgu maam maanaam waa sama moomu jeune yëpp laa wax moo nekk dernière chose pour loolu noonu yëpp nag mu am quoi maanaam état bi mooy jàppale jeune yi nu mu leen di jàppale mooy maanaam du question tey nga woole wax leen ne maanaam lan mooy seen problème ñu wax la suñu problème ba pare nga xam ko maanaam te so te liiwoo ñu si état bi nag dëgg la mi ngi liggéey mi ngi def lu mu mën mais dafa am côté boo xam ne affaire bi dafay sooxee nu mu fa sooxee mooy ma mi ngi mi ngi defar nag mi ngi defar kër gu rafet kër kër gi bu rafetee te ñu fa dëkk te du ñu si lu nooy tamit am na leneen lu ko gën quoi li ko gën na ñun ñii ñoo mun a defar réew mi lu ñu mën a defaree réew mi mooy gars yi ñoo ñu jàppale tuuti parce que ñun ñii ñëpp dañuy xëy di liggéey ah mais lu ñuy xëy di liggéey lu ñuy fay li ñuy fay quoi boo demee fee dañ la fay maanaam xaalisu Sénégal amul njëriñ. waaw gëm gëm sa bopp daa mën a dépassé nga dajal yi nga dajal dem tukki ñoo daane doole def nekk moodu moodu comme ñëpp. mën naa fee mën a tekki kay an loolu mën naa nekk kay mais dimbali googu noonu ñu wax day fekk ñoom ñu bëgg ñoo dimbali yëkkati cent franc jox ñu mais mënuñu suñu dërëm loolu ay waxu kese. Enfin, l'actualité sportive avec le recours du Sénégal pour le mondial U17 euh, qui parle de l'inéligibilité du, du, euh, du footballeur Issoufou.

faute de pouvoir vous joindre au téléphone malgré son insistance via, malgré mon insistance via SMS et appel, je m'invite dans vos bureaux par voie épistolaire afin de vous demander très humblement d'accorder la clémence au personnel de la chaîne YouTube Allo Sénégal. Je vous prie de retirer, de retirer euh, votre plainte et de faciliter avec les autorités compétentes leur, élargi, leur élargissement. Magnam Law et ses collaborateurs sont fautifs. reconnu publiquement depuis le 12 novembre à travers un visuel où ils, se pré ils leurs excuses. Ensuite, le contenu a été retiré comme prescrit, Le code de la presse et les autres textes qui prévoient et organisent les conditions de rectificatif de diffamation et autres atteintes à l'honneur et à la considération euh, d'une personne. Pour rappel, suite à une plainte déposée par le ministre Mambay Niang, ses avocats, ses avocats pour diffamation et injures publiques, l'équipe d'Allo Sénégal a été cueillie par la de Thiès dans la nuit du samedi 11 Donc, c'était donc, chers internautes de CNE Info International, c'était tout pour votre session d'information de ce jeudi 23 euh, novembre 2023. Euh, merci et bonne suite des programmes sur CNE Info International.